asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di jaajëfal si li ngeen di suivre seen chaîne Pexxe TV tey nag ñu déplacé wu ñu ko fi nga xamante ni moom mooy kër mooy Seydou Diallo ñëpp nag gën ko xam si Ndiaye Dragon temps yii passé fii maanaam Sénégal yëngaloon yëpp waaye tamit lépp nag dafa am si lu mu ko tegoon balaa may gën a euh, xuus si waxtaan bi damay bàyyi ki nga xamante ni moom mooy Seydou Diallo mu ngi mbokk internet bu Pexxe TV yëpp Seydou ñu ngi lay nuyu. maa maa ngi leen maa maa ngi nuyu soppe yi maa ngi nuyu xale gàtt te am na solo trop. waaw Seydou mu amoon li nga xamante ni dañ la ko doon baaxante muy Ndiaye Dracon ngay liggéey nekk Sénégal tur boobu noonu ak société bi ngay tudd ngay dugg di saafonte yow di dem liggéey est que amul lu mu lay gêner par rapport ak bon bi. waaw des moom bu fekkee ne da nga nekk nit koo xam ne kii nit ko xaw a compliqué tuuti day métti si yow parce que des fois nit ñi dañuy ñëw des fois ñii ay intention yu rafet dañu ñii ils sont mal intentionnés tamit mais yow yaay am esprit de grandeur mais des fois tamit nit nit la des fois nga jékki-jékki toog ba ci yàgg nga am loolu yëpp ci mooy wane jëmm nit ki mais yàqul dara. parce que lépp yàlla la daal dañ yàlla sant yàlla alhamdulilah. waaw sant yàlla tey jii ñu nekk si njàqare bi nga xamante ni adduna bi yëpp daf leen laal muy que ni covid fee nekk feebar bi nga xamante ni dugg na Sénégal ba dégg nañu ba bis ni ki tey jii nii am na sept cas yi nga xamante ni dañoo décédé tey jii nii yow ban jàngat am si euh, feebar bi nga xamante ni moom mooy pandémie bi euh, créé panique si adduna bi waaw xam nga deux mille vingt bi euh, dañu amoon nañu écho bi que ne at bu tàng la te xam nga bu ñu xoolee euh, ñaari biir yi dañoo départ waaye bii yéex a yegg si xam nga l'année du dragon ak l'année Covid 19 dañoo départ mais boobu fekk mu yegg Sénégal mu di ñaari mbir yoo xam ne yi. Euh, dama ne du hasard moo leen boole xam nga benn affaire la boo xam ne bi peut-être que nit ñi amuñu dañu yéex a am aperçu ci affaire bi ba mu dal seen kaw gaa yi seen jël ay matuwaay mais lépp yàlla la ñu sant yàlla même bu dee ay pexe nit tamit luñ ko jiiñ nit dañ naan pexe yàlla la ay pexe suñu borom parce que nit ki mu jéem a sotti yàlla naa ci ràññee mais man de dama ko jëlee à la légère wax dëgg yàlla parce que at bi doon xaar mu tàng la moo tax parce que waxoon nañ ma ko parce que mu mel ni ba naan Drago sama tur di siiw bettu ma moom parce que. une semaine avant yëgoon naa sama tur dina wër àddina kon donc mais coow loolu dama jàppoon ne peut-être que dama doon ñaan yàlla yàlla du mu nekk coow yow police ak tribunal bi may julli loolu doon ñaan bi mu ñëwee nag nekk bi dama ne alhamdulilah sant yàlla xam ne comme lii la woowu ñu ci tribunal woowu ñu ci police alhamdulilah sant yàlla la man daal jàngat bi ma ci amee daal ba fi toll nii mooy que hors secteur mu ngi rey ñu bari mu ngi faagaagal ñu bari bu ngeen xoolee feebar bi en tant que tel moom ci boppam amul ngaañ léeg lu jóg rek am na lu mu àndaale lu kenn du gis muy dafa ànd ak ngelaw lu sew loo xam ne bu la duggee moom kese bu la duggee mun la faat gars yi faj ñu ne ah li wér na nga génn mais bu àndaale ngelaw li bu la duggee rek la lañuy xaar ba ci yoonu yàlla yi tey gaa yi ci def ay ñaan bu baax mais jàngat bi ñu ci amee ba fii pare nii feebar bi pareegul pareegul deux mille vingt yëpp la nga wujax takk waaw ñu ngi dégg ay nit ñu ngi naan ay féet ay mai day jeex affaire yooyu noonu yow loolu ak par li nga wax mu ngi demee xam nga ñoom ñoo ko waxal ne bu duggee ci benn secteur mën na wàll ñett ñett wàll du di dabu kan la ñuy jeexal nga xamul mm-hmm. amaguñu vaccin moom doy waar loo xam ne lii tey même buñ lay wax nga utiliser sa xel même bu la kenn waxul nga war a xam ne lii du lu daal xel peut-être nag masque yi mu digal doomu adama yi mën na leen sàmm mën na leen sàmm parce que tey tamit am na loo xam ne lii bu ne def leen yi defee leen noonu parce que bu ëllëgee bu ñuy lim ña wàllaate yooyu yow mais nag la ko la ñuy xalaat. affaire bu seytaane la wala affaire bu. farax tuuti seytaane moo loolu moo tax askan wi dañu bëri lu ñuy suur. bëri lu muy sóobu parce que dafa raxatu te mën na ci fàddu ñu bari xam nga ñu ngi ay set. jël ay matuwaay yu mat sëkk xam nga ñu ngi mag yi am na nañu taxaw ne mag yi du mettre dëkk bi en quarantaine parce que nit ñi dañu war a liggéey dañu war a kii nit ñi dinañ mettre seen bopp quarantaine te kenn du leen ko wax xam nga baaxul. kon yow da nga lii du feebar boo xamante ne virus la waaye yëfu seytaane la. xam nga virus virus am na mais dafa la xam dafa am lu mu xam nga loolu lu mënut a teg ba lu mënut a teg ba loolu a. mais koy wax. Mm-hmm. naan loo mënut a teg ba am na laaj yu nekk ci ginnaaw loolu mënoo gis. Mm-hmm. am na ñoo xam ne am na njëkk yëpp mais mënoo gis. nit ñi ñu naan ñu koy faj ay chloroquine ay yooyu yëpp muy faj ñi ñi ñi ñu toogul si hôpital bi loolu yow ban jàngat nga jàng loolu am na wala. waaw ndimbalu suñu borom la rek xam nga loolu moom ndimbalu suñu borom la mais tey ji bu doon faj bi dëgg dëgg dëgg doomu aadama yëpp wér mais fi mu toll nii ñu ngi ñu ngi ay calmement di kii muy génn ci ñenn ñi. mais bu duggee ci yow bu la mënul dara génnaat xam nga yooyu yëpp gaa yi koy soxla xamuñu soxla lañ koy wax. mais daal liñ ci mën a wax daal mooy na doomu aadama yi toog seen kër parce que dafa rax seytaane nañu toog seen kër bu ñu bëggee am jàmm nañu toog seen kër yi léeg-léeg nag ngi dox naa dox doxal boo taxee li dañu gis maanaam feebar bi ni ko gisee maanaam jour bi ngay naan dara boobu moo fi nekk yow loolu noonu affaire boobu moom ñëwaat si yow ba nga gis ne lii seytaane moo ko donc tey jii nii yow lan nga gis comme solution. askan wi ma leen di ñaax mooy ni ñu gën a toog seen kër gën a fàggandiku ci seen bopp mooy li ma leen wax nañuy baax parce que bu dee la mënaloo bu dee loolu mu àndal te nit mënu ko teg bët mm-hmm. loolu da lay fàtte lu bëggee fàtte. waaw Ndiaye Dragon kontaan nañ trop si entretien bi tamit euh, di wax waa pexe TV ñun lii lañ koy defee saa su ne bis bu ne di wër si li nga xamante ni moom mooy maanaam gox-goxaat yi seet ñi nga xamante ni ñoom la ñu war a seet dégg leen suñu micro si suñu kanamu écran pour à ce que ñu gindi askan bi ñaax askan bi yee leen si ay anam yu bëri tey nag dañ leen dalal tey nag ki ñu dalaloon mooy ki nga xamante ni moom mooy maanaam saytu. Diallo ñu gën ko xam si Ndiaye Dragon dégg ngeen déclaration bu def nekk na déclaration tamit bu am solo bu jar a bàyyi xel tamit di leen xamal ni moom si boppam dafay tàmbale di liggéey ki nga xamante ne moom mooy maanaam équipe bu Pexxe TV di fi def am solo na ngeen ko xaar Ndiaye man yaakaar naa ni loolu mën loolu nga ko mën a baaxee ñi nga xamante ne moom mooy maanaam bokk internet Pexxe TV yëpp ak àdduna bi. waaw xam nga li sama accordé leen mbir mi parce que dama ne woon wax dama ko bàyyi boo waxee wax ñu dëpp ko yow fa ngay gisee peut être ñeneen gisee wuñu foofu fa ngay yëgee yëgee wuñu foofu mais peut yàlla moom mooy tabbal ci doomu aadama yenn ñi moom sax peut être mën na bañ xam boppam. loolu la la def ci yow di ay nga a xam lépp waaye bu ump suñu borom moom ma la jàkkee kon nag nañuy bàyyante xel ba umu ne nit ki nga gëm ko waaye mën na la wax la mu la nga bàyyi ko xel comme dañoo nekk ci jamono ju xaw doy waar nañu bàyyi xel yenn yi bu baax te incha allah ñun dinañ liggéeyandoo mm-hmm. bu baax danañ liggéeyandoo ci yeneen i anam ñoo ñaan yàlla aussi lii gaaw a dem incha allah mm-hmm. at bi daal incha allah nañ yàlla balaa moo jeex yàlla saafaral ñu ko mm-hmm. ndax yàlla nii xam ne mi bàyyi lii ñëw moom rek moo ko mën a téye ci kàttanu borom waaye du pexe nit jërëjëf allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam